sóoratu naasi saaru nit ña madaniya tuutaleeg madina la fukki ayaatin juróom benn aaya la mu ne allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar wa lillahi alhamdu qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne a'uudu dana ma muslu bi rabbi naasi ci borom nit ñi maliki naasi kadi buuram nit ñi ilaahi naasi kay yàlla nit ñi waxal ne maa ngi muslu ci yàlla mi nga xam ne moo di borom nit ñi mooy buuri nit ñi te mooy yàlla nit ñi rabbi la jëkk a wax nit dana nekk rabbu te du doon malik rabbu mooy borom def rek borom kër gi borom mbub mi borom lu nekk du nekk am na borom nit mën naa nekk borom dara te du wut buur moo tax mu teg ci maliki naasi ñu xam ne borom bi ñuy tudd moom borom la buur la itam boole nit dana nekk borom nekk buur te du doon yàlla mu tekki ne ilaahi naasi ka yàlla nit ñi nga xam ne borom bi ñuy tudd ci moom borom la buur la te yàlla la itam maliku ak maaliku du benn maaliku mooy aji moom rek waaye bu buur maliku nag mooy buur maliku bi ci moom mooy mulku mooy firi nguur maaliku nag bi ci moom mooy mulku mbir moom rek yàlla tudde na boppam borom laaj ko mu jël ci nit ñi mu tudde boppam buur laaj ko mu jël ci nit ñi mu tudde boppam yàlla laaj ko mu jël ci nit ñi rabbu mooy aji yéwénal aji yar nit ñi ñetti xaaj lañ xale yu ndaw yi ak waxambaane yi ak mag yi xale yu ndaw yi laaj nañu am ku leen ku leen di yaar su dee ku leen di yaar defar leen laaj dañ mën a nekk mag yàlla ci boppam foofu rabbu soo dee xale am nga borom boo xam ne mën na laa yar yéenal la ba nga mujj nekk mag soo jógee ci xale looy nekk waxambaane waxambaane soo ko fekk dafay jaw dafay laaj di ko yar di ko tàggat di ko jubbanti balaa see foofu yàlla daal di ko fitoon ci dëgg ko mbalite ba nga nekkee waxambaane nag ba yëg yow kenn nga xam ne man yàlla it maay buur bi nga xam ne maa mbëri tegu ci ku nekk soo weesoo waxambaane delluwaat ci mag jaamu yàlla rek ay ne ci sa bopp su yàlla na ne ci yow mbaa su dara desul lu may bëgg a jaamu itam am nga yàlla joo war a jaamu mu daal di tudde boppam ilaaho moo tax de tudde boppam ñetti ci ci taal rabbi naasi mu ñeel xale yu ndaw yi maliki naasi mu ñeel waxambaane yi ilaahi naasi mu ñeel mag ñi rek nga xam ne dalu ci yàlla rek a war ci ñoom maa ngi muslu ci borom nit ñi buur ak nit ñi yàlla nit ñi ci lan muy tëral waswaas ci ayu aji jaxjaxal al xam def ko xaasoon mu ne musu yàlla mooy jaxjaxali saytaane yàlla ma yàlla musal ci saytaane saytaane def ko xaasoon bi nit ku nekk yàlla ko boole malaaka boole ko saytaane su fekkee ni tudd na yàlla malaaka ma daal di jëm di ko xawarloo naa ko wax góor toppal saytaane sa dal di rek dal di jëkk moom xoro jëkk boobu muy jëkk saa yoo xaw a jëm ci topp yàlla moo tax yàlla dundee ko xam naa si jiw gi daal di jëkk. alladi kaaka ñu wër si dana mu jax-jaxal si si bëri naa si ci xol nit ñi ki nga xam ne mooy jax-jaxal nit nekk ci xolam mu ne su nekk ci laale moom su ne la wa naa seen nit ñi moo xam saytaane ci su ne la moo xam saytaane ci nit la saytaane ñaar la saytaane ci junne bi mooy ki lay gis te doo ko gis. mu di la jax-jaxal mu ne dugal ci lépp loo xam ne yàllaa ko bañ soo xeewoo mu daal dina la jëkkee lu bon jëkkee lu bon su dara def lu mooy lay tëdd mu ne la mujjee lu bon naka nga xam ne malaaka ni saa yoo xeewoo mu ne la jëkkee lu baax boo xamee dara def lu tëdd mu ne la mujjee lu baax saytaane boobu mooy saytaane ci junne bi moom doo ko mën a gis su la jax-jaxalee ba tey mel mën a lu la dara mu dem jaarale ci nit jaarale ci nit boo xam ne sax fa xarit la mu ñëw moom sant la lu bon li nga xam ne moom la seytaane si doon sant mënu ko su ko defee rek nga def ko de moo tax seytaane ñaar la seytaane si nit ak seytaane si jinne seytaane si jinne ji muy bon bon seytaane si nit ko ëpp doole ndax seytaane si nit bi mooy ànd ak yow nekk ak yow soo ne amal billahi mina seytaane rajim sax mu ne amal billahi mina seytaane rajim naka yow te dina bon ci yow seytaane nag dina sant lu bon ñaari seytaane yooyu yëpp jaam bi mucc na yàlla ci ñoom seetal nag ñaari saar yi saar wu jëkk benn tubu yàlla rek a ca nekk alhamdu bi rabbil falaq rabbi rek a fa nekk amatul yeneen tubu yàlla te mucc na yàlla ci min sharri maa xalaq wa min sharri qaasiqin idaa waqaba wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri haasidin idaa hasada xay yu bari mucc nga ko ci benn tubu rek ci saaru ñaareel bi nag wenn xay rek nga musli mooy xayu seytaane ne nga bi rabbi naasi ne nga maliki naasi ne nga ilaahi naasi xaw nga yetti tudd yàlla yi mag ngir bëgg rek seytaane ci saaru njëkk wa benn turam rek nga tudd musli yàlla mboolem lu yàlla bind lu waral loolu ñii saar nga musli ci ci benn tur ak xay yu bari ñii saar nga musli yetti tudd yàlla te mu fi mooy yenn xay yenn xay yi ci saar yu mujj yi xay yu diine la xay yu dem ci diine la xay yu dem ci diine la moo gën a màgg mbooleem xay yëpp moo tax ba moom la gën a war a mucc te mbooleem xay yi yëpp nga xam ne ci mbooleem diine ji lañ nekk baata rabbu rek nga ko muccloo waaye xay yi nga xam ne ne dafay laal sa diine kooku moom mucc nga ci rabbi naasi mucc ci maliki naasi musli ci bilaay naati téere baa nga jeex na foofu ana luñ tàmbalee woon téere bi bismillahi baatam laa woon ca bokk téere lu ci mujj naati lu ci mujj ci téere nga xam ne yàlla pare ko mbooleem mbindee yëpp waaye mbindee yi ci def yëpp ñu ñëw leen téere ko moo tax yàlla wu ci téere yi ñu ñëw ko tëj surat Faatiha bi bitaa bi taaw Faatiha téere bi màcc na ko dem màcc la d'abord ayat bi juróom ñaari ay la ndax suba la la la la ci taal ci réew lañ ko jeex wante ci biir taal ci bi moo ko firi pour méngale ñaari tur yi ñu mbaam daal ko daal ci tur mu gàtt façon lañ ko firi ayat bi ci taal yàlla dafay wax ne wax leen ma ne alhamdulilah jëm bi yonent bi daal nekk rek ñaar yàlla rabbil alamin wax leen ma yéen jaam yi ne sant yi yëpp yàlla rek la ñeexal ndax lii ay meloom la lii di ay jëfam soo dañu ne ay cant yonent la cant xatim ci xatim yàlla mu sant jëmmam cant ga bàyyi koo ci yàlla jëm ci yàlla ni ci lam ne neema baax na almawla borom ba man la nga xam ne moo tagg moom moom tagg wi kooku kenn ësoo ko moom ak tagg moom tagg jaamam moom ne neema baax na alax ci jaam ba ayo baax tagg waa ngi bàyyi ko ci yàlla jëm ci jaamu yàlla jaam bi rek ñu ngi ko taggee lépp ku moom ci yàlla jëfam la te boobu bàyyi ko ci jaam bi jëm ci yàlla ni ko yow mu yàlla jox teewoon nga ne alhamdulilah rabbil alamin yow jaam ci jëfam nga yaa ngi koy sant ci jëfam ak cant ak jaam ci moromam te moromam jaam defal la lu baax nga gërëm ko yow jaam bi defal lu baax ak jaam bi na ko defal ak ngërëm ni yëpp ku moom yëpp yàlla moom ndax jëfam la moo tax cant moom fii ko mën a jëmale rek yàlla jël booy boo sax dañ ko gërëm koo gërëm rek yàlla yàlla moom gërëm la ndax boo gërëmee yàlla meloom nga ko melale soo gërëmee gërëm ci yàlla jëf yàlla nga ko gërëm boo yàlla moom gërëm la rabbil alamin kay aji moom bindee bi yàlla mi nga xam ne moom moom boo leen bindee ñëpp alam bind yàlla tadduna de dañ ko jàmm jàmm mu sakkari rek mu gën a labat boo leen tey bindee ñëpp arrahman yi ka daaj teewul bi naa fuloot yaar yaara yi ka daaj teewul bi naa jaara xira maliki yow mi diini tey buuram jëfët tey ba wax leen mu ba tey ne iyaaka yow yàlla daal naa bëgg la muy jaamu o iyaaka tey wala tey na nga dindani ko ñu dina yàlla nga jubal ñu siraata yoon wa al mustaqim nga daal jub siraata mu tële yoon ñaa anam ta tey nga aleen ci ñoom ay dem ñu dina yoon yi jubal ñu aleen ci ñoom wala sa dina di jaagan ñu ngay leen rek ñu jubal ñu mere ñoo yemut yàlla waxal na ci alquran ne mere na leen ñu réer moo dina saaraa ñoom ñu ngi béy defee saa ak yaay ak ñu yàlla te xam nañ ne yàlla yàlla rek la surtout Baqara ci saaru nag ma dañoo ci sëñ Madina la. ñaata am ñaar téeméer la ba fukki nag juróom benn waxtu maa ngi may juróom ñett bu baax ak ñu ciy tàggee bismillah sax wax ko ci biir bu rahman ka day seen yaa ja ja ni ara ka day seen yaa ja la karam alif lam mim alif lam mim yaa ya ala ma ya kam ya ni kuru ngam ngi dal ko ci lam mim waaye daal ci kitaabu jure ci jàng Muhammad laa ray ba dee sikk ni ci moom naka yàlla la jëlee ba tamit moom aji jubal la mu taxale so ni ci ci ragal yàlla nana ñoom de dina ñoo ñaan ñoo ñoo dëggal ci xayma ci aji fatu ja mi nga xam ne gëm nañ yàlla gëm nañ aljanna gëm nañ safara gëm nañ siraat gëm nañ sënkam yàlla te lépp gëm nañ laaj te maraaka te loolu lépp xam na leen waaye te ñu gëm nañ wala ci moom dañuy dikkee sawaata ji ñu juróom wala ñu ko xamante ne ñu ko waxee ñu ñu ko xamante ne ñu ko leen ñu waxee ci la nga xam ne yàlla dana leen ko wërsëgal wala dina ñaan ñu ko dana ñu ko ñaan ci la wax dañu ko ci yow wa ma islam la wax leen ñu xam ne ci dëkk ba kula ko ñu la taala tan way na ko ci ndim da dum ko borom tan ñu la ko ñu la gaa ñu am ci borom ñu do taxal la ko dara ci borom do tan la ko dara ci borom ñu la tere la ko dara ci borom muhammad akra ci borom ala ko faatu ñu ko ko na ci na wal hadi ila sirati al-mustaqim ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam ci daga tawa gam ya rasulullah ci daga tawa yalla yalla ba xam yalla xam daga daga daga yalla len xam yalla xam daga daga daga yalla len xam ba daga len ci barke ndar ngeen xam xam moy jotté yalla yalla may xam xam moy xam xam bu jotté yalla yalla boole ci jaamu len ko tan ngeen tan leer ma len ci ci won dugal jaamu len ko ci dara yalla dama yalla may ko ci dara ba yalla yalla may jëwal ñu la jëmale ci diine ak doom ñu la jëmale ci diine ak taare ñu la jëmale ci diine dëkk ñu la jëmale ci diine yalla yalla ko xale mborom diine ba tekkere yalla yalla dimbale ko ko dimbale yalla yalla dimbale ko ko dimbale yalla yalla dimbale ko ko dimbale yalla yalla xëyul ko lam bëgg ak lam bëgg yalla yalla xëyul ko lam bëgg ak lam bëgg yalla yalla xëyul ko lam bëgg ak lam dimbale yalla yalla dimbale yalla yalla dimbale diine l'islam yalla yalla dimbale diine l'islam ci yalla yalla dimbale ci diine l'islam yalla yalla dimbale ci réew yalla yalla indi parti ci réew yalla yalla may xam-xam ci réew yalla ci yalla wuti wërsëg dëkk bi ñu lew yalla yalla may jàmm yalla yalla xeer ci yoonu jub yalla yalla xeer ci yoonu jub yalla yalla dimbale yalla yalla may nawet barke yalla yalla may nawet barke yalla yalla may nawet barke yalla yalla may ci ngir man yalla yalla may ci ngir man ñu ko ci ci tawrat ngir dañ ko yalla yalla may ngir ragat te boole ñu ñu sant yàlla képp ku sa am bakkaar yal na ko yàlla far ku sa am bakkaar yal na ko yàlla far ku sa am bakkaar yal na ko yàlla far ku sa am rag yal na ko yàlla far ku sa am rag yal na ko yàlla far ku sa am rag rag sa am rag baat yal na ko yàlla far ku sa am soxla lu jëpp mu yàlla yal na ko yàlla faj ku sa am soxla lu jëpp mu yàlla yal na ko yàlla faj yàlla yàlla mëngoo yàlla yàlla mëngoo yàlla yàlla mëngoo dëgg dëgg mëngoo yàlla bu yàlla def ñu ci safara dañ booba yàlla bu yàlla yàlla bu yàlla def kenn ñu ci safara yàlla bu yàlla def ñun kenn ñuy cër safar képp ku fi réer yàlla ko yàlla xamal ku fi ñàkk yàlla ko yàlla amal képp ku fi amal bor yàlla ko yàlla xeer képp ku fi amal ko rajo yàlla ko yàlla saafara baama rajo yàlla ko yàlla saafara ku nekk ci ci yàlla ko yàlla waxtu ko benn ko jàll ku nga amee soxla ko dina yàlla yàlla ko yàlla ñu jàppale ak ko yàlla yàlla boole ci jàmm yàlla yàlla boole ci jàmm yàlla yàlla boole ci jàmm yàlla yàlla def jàmm yi nga xam ne loolu nga ko ci dara sa yàlla yàlla ku ñu ko mu dee yàlla yàlla mëngoo yàlla yàlla dimbale ak yàlla yàlla moom la la ak alquran yàlla ak tawassul ci tawassul ci moom ñu tax ñu wasal ko barke ñu gis naa ñu doon déglu leer bi ñu doon déglu leer bi boobu tey yàlla ngeen ko yàlla jëfandoo yàlla ngeen ko yàlla jëfandoo te yàlla na yàlla def ci yéen barke ci yéen yàlla na yàlla def ci yéen barke ci yéen xam nga barke yi yàlla romb yàlla defal yéen ba fa seen dund yàlla defal yéen bu ci àllaxee yàlla alquran nekk